a bi ñu nuyoo Modou Lo ci jullit ah, tay bi bés bu màgg la bés xam ne man de sama xol sedd naa ndax toog naa gis naa samay njaboot gis naa samay xarit gis naa samay nawle ah li ma gën a neex àdduna tay la am ma toog xalif général Xaadir gërëm ma devant caméra yëpp gërëm ma devant doomu aadama yëpp loolu nag li ko mooy nit ma àndal di liggéey ak moom ci ngor ci jom fulla ci fayda ak ci yëg-yëg ak yéene muy ki nga xam ni sama njaatige la muy major Moussa Ba bëggul ko tudd turam ci dara day bëggul ko tudd turam ci dara waaye ku ko def dinañ ko wax ndax tamit ñi nga ko ñun ko defarandool ñooñu am na koo xam ne yàlla rus na ko ci ah kooku dina ko ñaanal yàlla mu nangu ak mbooloo mi mu àndal yëpp yàlla sàmm leen dëgëral seen diggante musal leen ci seytaane barkeel leen wërsëgal leen ci barke Cheikhna Cheikh Sarr di gërëm ak sama wayjur bu jigéen di gërëm sama njaboot yëpp di gërëm suma borom kër di gërëm suma papa di delluwaat di sax rek doonu ma ba tey taalibe Cheikh Sarr bi taalibe taalibe Cheikhna Cheikh Sarr wéyee laa te dama bëgg doon taalibe Cheikhna Cheikh Sarr bi kontaan naa bu